bu ma ñëwee ci question actualité bi damay gis ne état bi nee na parti opposant yi nga xamante ni wala boog euh, euh, parti yi fi nekk seen seen financement daan jóge mu bëgg koo dakkal noo gisee lool parce que fi mu toll nii gis nañu opposant amatu fi euh, kii nga xamante ni mooy Sonko moo fi des ñu ne comme moom moo doon ëpp li daan def loolu ñu ne financement bi dañ koy arrêté mu jóge foofu noo gisee lool. waa xam nga man moom ci dimension politique nag nekk moo loo xamante ni dama ciy su euh, xuus cent pour cent quoi ndax nekkul suma domaine waaye l'essentiel bi euh, waaw waaw waaw waaw waaye waaye boo ci ni ma ci ni ma sama xalaat boobu bi nga xamante ni moom laa ci mën a wax mooy euh, moom Macky Sall def na loo xamante ni pour mu leer ba doomu askan askan yi teg ko fii moom daa war a def li nga xamante ni pour mu leer askan gi seen xel daal di mën a dal ndax man fi may njëkk a amee mooy bala ngay wax bala may bala may joxe question boobu noonu di ko tontu damay njëkk a wax fi nga xamante ne mooy mënd yi nga xamante ne booy génération bi suñu suñu suñu suñu génération ñëpp boo xoolee ñëpp a ngi dem pour génn pour dem gaal moo waral loolu na génn jàppale jàppale jàppale jàppale askan bi ci côté boobu corona ba mu ñëwee dafa ñëw def ay affaire am pour que ay jël ay masque def gars yi génn jëmi yeeg nangam ak nangam ba gars yi pour mu ne ji di mbëkk fi mu toll nii amul benn effort boo xamante gis nga ko pour jéem a freiné gars yi pour gars yam benn place war mu jàppale wax leen wax génn yow ba xale yi xam fan la ñuy toogee quoi am na importance waaye ci benn côté moom moom loolu dafa defoon loolu ba gars yi fal ko na bàyyi a def loolu mu def loolu loolu dong la rek du leneen ndax bu fekkee da war a génn yow pour mu leer boo demee extérieur pour gars yi la jàppale pour yow nga mën a nga mën a taxawal say affaire non ga na bàyyi ñeneen def loolu affaire yooyu loolu mooy affaire bi rek comme que xelam moom tamit foofu la ko toll ba bëgg a dam noonu man du ma ci ndax man affaire politique moom moom demee ma ci noonu bu baax quoi mhm.